asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki seetaankat yi yéen ngi ànd ak groupement xeet communication ci màggalu Touba 2011

أنني The Sheikh is teaching and is spreading only the true light of God. And the true light of God is the real, the real truth with a big T. So that's why we are very happy. And all those who come are very happy. And as I said it, truth is here, the light of God is here. dee du koy dëppoo ni tey yaa ngi sën amul kenn ku dox ci kaw suuf tamit dana dikk ni nga féete woon kaw suuf suuf féete eu kaw amul kenn ku yaay woon naa kaw ci kaw suuf yore bi ñu baax baax baax ñu ci biir suuf ñu ngi dox ci kaw suuf si ñun ñii seen tubaab yi baax baax ñu ci biir suuf ñu dox ci kaw suuf ñun ñii kenn ku ko nit ñu ci biir suuf ñun ñii ci biir suuf lañ ñëw fan mu du jaay si mu mu mu am kenn mu mu ko tey yàlla loolu mooy ñu war danoo xam ndax suba lañ fi am dé suñu lépp nañ ko jox yàlla moo ko moom moomu tus la ko ñëpp xam kenn mu fi dara mu mel man de waat naa yàlla ni kuy man di wax yàlla bu dee chrétien la ñëpp damañu yàlla xam man ku wax ci yàlla rek sama xol dañ set Fukifan fan ak ñett ci wéru janvier ci atum 2011 di fukifan fan ak juróom ñett ci wéru safar ci atum jumni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ci ginnaaw gàddaay gi ñoo ngi fii si bu tedd bi di Touba si taybatul karim kër cheikh ahmadou mbàkke maawul ibn sëriñ Amdi Moustapha min gii di kër sëriñ Ahmadou Mbacke maawul xayaat nekk fii fi Taybatul Karim fi Touba soo fi ñëw jóge sow mën ngaa ñëw ba eli héliport Touba nga wër rond-point bi jël sa càmmoñ dawlu lu tolloog juróomi téeméeri mètre di nga gis tableau bi lay joxañ mbedd mi jëm kër Serigne Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat mbedd moomee soo ko jëlee di nga dawlu lu ñenti téeméeri mètre ak ci kër Serigne bi gis ko mu uuf penc mi ak bii nag nekk fii fi taybatul karim sëriñ ahmadu mbàkke maawul xayaat di fi màggale sëriñ saaliyu mbàkke ibni xaadimul mustapha mooy ki ko ko joxoon diggante sëriñ ahmadu mbàkke ak sëriñ saalif mbàkke mooy diggante bu yàgg ndax sëriñ ahmadu mbàkke maawul xayaat bi muy dugg ci yoxo yi sëriñ saaliw mbàkke juróom benn at rekk la am ci zaayir Serigne Saliou Mbacke yar ko jàngal ko nekk ak moom diiru fukki at ak ñett seede ci moom ne fépp fu sëriñ bi jublu Serigne Touba jàppale ko Serigne Touba jublu fa. bis bi nga xamantene nak ci le serigne ahmadou mbake maoul maawul don san ci kërëm gi fi taybatul karim serigne cheikh mom serigne salih mbake mo fi teewal bopam def fi ay ñaani bopam bayatu khairal wara billahi wal xalami mbokki seetaankat yi ñu am mbégte lool ngir and ak yeen si bisu màggal gi ba lépp lu ci xew ñu mën leen koo ngeen mën koo seetaan mën koo xam ndax mbokki taalibe yi nañ ci ak ti en nañ ci ak ba wet ci def ci électricité ci hygiène cuisine ci collation ci sécurité ci ci santé ba ci communication mbokki taalibe yépp boole seen bopp nekk benn taxaw bés bi ci gën ngaa rafetee ne anam fi llahi wa sikri wal muxtaari fi xidami allah rabbun karimun la sarika lahu fil mulki wal hamd loolee yépp di liggéey bu sell di liggéey bu rafet bu taxaw ci tawxiit bu taxaw ci jëfe sunna li ko waral mooy jëmm ji nekk ci kanamu mbooloo mi di ku yàlla baaxal di ku yàlla tànn di ku yàlla taw feexal kooku mooy kan mooy cheikh ahmadou mbàkke maawul xajaat du noppalu mukk du tàyyi mukk ci jàngale ak a yare ak a tasaare digg digg njàngaleem sëriñ tuuba te di ko tibbee ci am dundam di ko tibbee itam ci am dundinam di ko tibbee itam ci ab njàngaleem wadamini تسليما خير المسلمين اغفر بجاه المصطفى لكل من خابني لوجه مالك زمن نافع بالفقر كل من تلقى يا من أتاني بالنبي وأبلغ أسألك الجنة بالمختار لمن يلوذ بيد الستار يقول للمدار والألماس يا خيرا يقيني تمام على الذي رابحني والياسين والشمل والمال بل جميعهم نفوس بلاد شيء الدر والمساء هي البلاد ابن لكل من الي مالا فعن يدي لا بساس مالا نفعتني فانفعني مدى سلامك بخير مردي لمن مان وساك الكدي مدى سلامك بخير مردي لمن مان وساك الكدي مدى سلامك بخير مردي لمن مان وساك الكدي مدى سلامك بخير مردي kon mbokki seetaankat yi du ñu def lu may ànd ak yéen wër yéen naat ci commission yi am na jëwriñ yu ñu fa fekk ñu laaj leen bés bi ana naka lañ ci taxawee ci commission bi nga xamante ne moom lañu féetewoo ngir bés bi mel ni ko sëriñ bi bëggee